Cheikh bu Soumaré nee na mooy candidat de l'espérance ki nga xam ne dafa ñëw ngir delloo ci xolu doomi Sénégal lii di ngëm-ngëm ak yaakaar ne réew mi mën na jëm kanam. parce que defe naa ne sama réew nekk naa fi yore fi nekk naa fi directeur chef de service directeur directeur général ministre premier ministre dem bitim réew yore fa juróom-ñetti réew ma defe ne xam-xam boobu ma fa jëlee. wala la ma fa jëlee mun naa ko indil sama réew loolu moo tax ma engagé wu. ndaw ñi la jiital ci projet bi mu am yéene jëmmal fii ci réew senegal moom mi fi nekkoon élimaanu jëwriñ yi di candidat bu parti démocratie et république dafa bëgg def ñépp gis bañ a rekk yem ci waxi politicien. tànneef bi ñu nar a def nag comme li ma ko waxee njiit boobu ñuy tànn te mu nekk président. yore réew mu toll ni senegal ak maxamam ni mu toll réew moomu ka koy yore warula ñëw di seet naka laay defee du ma defee dafa war a am xam-xam boo xam ne bu ñëwee bés bañ ko tànnee war na commencé mën a liggéey bañ a xalaat. si biir yi waxam njëggal waxtaan ñëw na si lu bëree bëri. may ñaan tey xale yi nga xam ne dugg nañ ci conflit yooyu. ba tey ñu jàpp leen tëj ci kaso bi maa ngi ñaan ñu jéem leen bàyyi ñu dellu ci seen njaboot loolu du tax maxaama ak doole état ku nekk xam na ko mu dañ. pare na dem ci askan wi matal li mu parrain yiñ ko laaj ngir mën a dëggaal candidature am gile gannaaw ba mu lajjee woon ci lu ni mel ci atum 2019 bile yoon fas na yéene def kenn tulaay kàttanam ba jéggi bile dëgg sërëx